ñëwoon tey ci almeeru marmiyaal yi pour indi fi benn ndimbal bu ñu joxoon pour ñu defar ci parce que dañoo gis constat que ni yu xaw a bëri di fi jaar ak lépp ñu waxtaan si ak kilifa yu yor wàllum politique ci dëkk bi ku ci mel ne ministre maire ak Pape Ibrahima ñu joxoon ñaari tonnes ciment nañ ñëw jox ko waa almeer pour ñu commencer si liggéey bi en attendant bi ñëwee aussi fekk nañ fi ñi nga xam ne ñoo yore commission bi teg nañ ko seen loxo rafetlu nañ ko bu baax sant nañ maire gërëm ko yaakaar nañ aussi que ni yeneen liggéey ci topp aussi moom dina ko def incha allah ci diir bu gàtt ci aussi ñi profité aussi ci occasion bi di wax képp ka xam ne yàlla def na ko jox na ko wërsëg yàlla suturaal na ko te man dimbale Almadies mën a di mën dimbalee waa Almadies mën na ko fi indi ndaxte soxla nañ ko lool gis nañ ne mur bi bëri na ay côté côté yi nga xam ne suñ bàyyee seetaan tuuti dina daanu te su daanu aussi du gën ñu directeur Pape Ibrahim Faye mom moko yawal fi pour mu indi 2 tonnes ciment pour ñu japp ci liguey bi nga xamanteni mom la armée li yoré ñu gis mur armée bi dafa bëri ay yaqku yaqku bëri ay bëtt bëtt lol lol lol motax bi nga masour bi mbay ndjay waxe euh, Pape Ibrahim Faye Pape Ibrahim Faye daal di indi jot nimbal bobu wa ñu ñaan nak kep nga xamanteni mi ci biir ndar nek bonne volonté rek nga ñëw japp ci liguey bi parce que armée li suñu kër la moy suñu kër deug ñuy ñaan képp nga xamanteni yalla am na lu mu la mënoo rek nga ñëw japp ci tek sa loxo ñuy wax rek ni képp ku indi ndimbal armée li am na commission du du du paa pa Assane Ba rek moo fi nekk am na commission bi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk bu yàgg ba tey ñu jàpp ci liggéey bi nekk ay bonne volonté kenn kenn sas ñoom ñu seen bopp dara kenn sas leen dara donc ñuy ñaan rek liggéey képp ku fi indi dara rek naka indi si commission bi ñu àndandoo liggéey te yàlla rek tax wasalaam loolu laaj doon wax affaire liggéeyu armée bi yëpp liggéey bi man maa ko yore sama loxo la nekk am na asan Ba moy secrétaire bi euh, ki euh, ki sar Amer sar moy président bi waaye du nu tawat ñu ñëw waaye affaireu liggéey bi mom man mako yéré daaw ba ren ngi wut ndimbal maire bi jotton nañu doxal kii Mansour Fay bobu nekkul maire sax dimbale won nañu ñaari pour ñu almeri yi nak haji xaj ngi dugg si digënté Medina ñu xol ko lu mat atangi ni nak ngi pour ñuy ñaan ndimbal pour ñu mën ko defar amna na sax ñu jotone joxe ku melna na jëm si yàlla sale salaba njabootam am lum ñu jox waye jotagun ko lolu yegg ko légui nak ñogi bëgg képp ku mën dimbal képp ku mën dimbal boma ma gisee wala nga gis euh, njaay wala baba njaay buñ ko jotee daanu ko def ci almeer yi euh, ta dara du si am problème armerie ci si boppam <coughs> mairie yi am na yu bëri yu si yàqu xaj yaa dugg ñun suñu wàllu bopp kër gi si boppam këru ñëpp la ñëpp yi ñu jëm si ñun ñëpp yi ñu jëm suñu ndey yaa ngi fi suñu baay yaa ngi fi kon na lu waay indi si armeri yi su ko defee daanu ko liggéey ñun bëgguñu dara si armeri yi bëgguñu fay yàlla rek ñu nu liggéeyal ñun suñu wàllu bopp ñun du doon liggéey si armeri ngir yàlla rek yàlla rek ñu doon liggéeyal bëgguñu si dara lu nu mën a am lii mënu ko gën a armée mënu ko gënal kon na kon mbooloo mi yëpp maa ngi di xamal de lu waay indi sa armée yi kenn du ko lekk te daanaka dugg sa armée yi ak mbooloo mi jullit yéen yëpp ñoo di gën di leen sant su waa Médina waa Médina seen bopp ñoom seen wàllu bopp ñoom ñu taxaw seen kër la seen mbir la seen la fii sa armée yi de ku fa taxaw rek daa jooy kon na lu waay indi sa armée ñun ñii daanu daanu ko liggéey bugguñu si xaalis bugguñu si dara yàlla rek ñu nu liggéeyal maa ngi di gërëm di leen sant